gaay ni ñu leen nuyu di leen ziar yeen yi nga xamne ne ci ay sport ñu wara a ci ben video wacc Iliman jay bi nga xamne Olympique de Marseille ñu koy bëgg mën nañu wax na accord amna ci digënté club bi ak ñi nga xamne ne ñooy dirigeant Iliman Ndiaye ñoom yaakaar ne boobale transfert du yagg lool mën naa sotti ñëw nag indi jay leral ndax Iliman jay Marseille club bu ko arrangé wala déet ak lan moy tax bu dé Marseille mu wara a mën bu soxla dañ ñëw ci loolu mais dañu wax yéen ñi gën ci page gën abonné da ngay bës ko notification bi pour ngeen am ay vidéo Taaral Future Sport sama gars yi Iliman comme ni ngeen ko waxee Olympique de Marseille équipe boo xam ne mën ñoo ne bu fa demee profil bi mu yor na naa mën a méngóog di sa mais est-ce que Iliman Ndiaye buy dem Marseille na boole ci contrat bi loo xam ne dañ dañ ko mën a ganteel bu ñëwee Marseille lu mën ta xew dina am temps de balaa jéem a jóge fi nga xam ne mooy civil prime league te lu mu métti métti dafa am temps de jeu dafay nekk te am yaakaar sax civil de Iliman Ndiaye war na faa mën a dugal lu mu bi ba sept ci fin bi jëm wala sax huit def ay passes décisives spectacle nga xam ne même sax bu imposé wu prime league ba moom Iliman Ndiaye dana am club yu ko jënd moo des ca prime a ndaw ndax chaque année mën naa qualifier Ligue des Euh, euh, première wala deuxième wala troisième kon Marseille équipe am euh, para bu baax ci mais nag temps bi kay la ñuy ragal mais bu bu leer na mën a am temps de jeu Marseille war na faa dem ngeen abonné ngeen commenté ngeen partagé merci beaucoup am ngeen jaajëf bu